presse. ok El Hadji Ahmed Aïdara. Bismillah. Karim Wade kon gendarmerie déglu nañu ko démb de Le Soleil yéene ne fukki waxtu yàlla kon la ko déglu Le Pays au quotidien ne Karim Wade day ñibbiwaat la kon këram siggi nag ca kaw ah! waa parti démocratique sénégalais yu bëree bëri kon ña fa woon Omar Sarr ma nga fa woon Ousmane Ngom ma nga fa woon Modou Diagne Fada fa woon ma nga fa woon Farba Senghor ma nga fa woon Bassir Diawara ma nga fa woon Bara Gaye ma nga fa woon même Abdoulaye ma nga fa woon mbir mi Wade président mel ni tulleeg ma lee le populaire ak le soleil ne nag bañ ko dégloo koon fukki waxtu yàlla ah doomu Abdoulaye Wade gi di Karim danañu ko dégluwaat alxamis tey i l'office yéene kaay ne boobu kay mooy doon ñetteelu yoon tribune yéene kaay ne procureur spécial Aliou Ndao moo xamal na Karim Wade ne ko mi nag bu ko génn réew mi bu ko génn bul tukki yéene kaay gi ne waaye nekkul ne Karim Wade kese la ñu tere ne bul génn de ah maa la wax li le laas ne maître Madické Niang nee nañ ko bul tukki Samuel Sarr nee nañ ko bul tukki Oumar Sarr nee nañ ko bul tukki Abdoulaye Baldé nee nañ ko bul tukki Doudou Diagne nee nañ ko bul tukki Seydou Ndiaye nee nañ ko bul tukki Karim moom mais ci biir réew mi la ko def passeport am ci boppam kon nanu ko nangu maître Ousmane Ngom ci le populaire nga xam ne kon ñu koy déglu nag maanaam kilifa yi nga xam ne day violé kon cartum réew mi di constitution bi ñun daal duñu wuyu ji benn yoon ci tribunal bi nga xam ne kon teg nañ ko fa yaay mu ne day saytu xawma ñi nga xam ne seen xaalis daal leewul xawma lan ak lan ak lan ak lan tribunal googee compétent wul laa la wax amul kattan gu mu atee ñoo xam ne kon ay ministre lañu woon ñi nga xam ne ay ministre lañu woon haute cour de justice ci boppam kon moo leen di atee waaw waaw maître Ousmane Ngom ne article bu di cartum réew mi moo ko wax man daal du ma wuyu ji benn yoon tribunal boobu parce que mënu maa Karim Wade daa dikk wuyu ji kon gendarme yii ngir xam lan lañ koy doyee Omar Sarr ci yéene kaay gi ne Abdoulaye Wade mësta wax ne bu leen wuyu ji convocation police wala gendarmerie la mu xamle daal mooy tribunal boobee nga xam ne kon teg nañ ko fi ngir muy saytu ñi nga xam ne xaw ma seen xaalis daaleewul xaw ma lan cour de répression de l'enrichissement illicite waaw kay waay tribunal boobee la ne bu ñu ko wuyu ji Modou Diagne fa daan ne ma ne tax a jug mooy yàqate Karim Wade mi ak kilifa yi nekk ci biir parti démocratique sénégalais Abdoulaye Baldé ci la populaire ne man daal aw ma compte bancaire ca bitim réew man daal aw ma kër ca bitim réew man daal yoruma ay milliards te ñoom ñii yor nañu kër ca bitim réew yor nañu ay milliards yor nañu it compte bancaire ca bitim réew maître Ousmane Ngom ci tribune yéene kaay ne ma kumba am ndeye kumba amul ndeye ne ci mbir mi le moom maître Ousmane ci la populaire ne waaye fenn <laughs> maître Ousmane Ngom ci populaire ne ko fen lañu demul laa wax tribunal boobu daal duñu fa wuy ji cour de répression ba waaw Sud Quotidien ne Karim day daj nañu ko ci biir réew mi ne ko bul génn cantakku nii génn guñ dee tribune yéene kaay ne juróom fukk yi teg ci ay taalibe Cheikh Béthio Thioune ah nanguwuñ benn yoon liñ leen di tuumaal ci wàllu manifestation yo maa la ko wax le populaire ne procureur bi day nee na ñetti at jàpp juróomi atu yàlla nañ ko tëj kon cantakku nii ci kaso bi allahu akbar réew mi Quotidien ne ba noppi nag sàkku fay ko allahu akbar lu waral lii lan moo waral kon Youssou Ndour ñu jëlee culture ba ca moom tribune yéene kaay ne xam nañu ko léegi de ah ndekete a fa jaar Abdou Diouf man président de la république woon nga ni maa la wax lii dogal boobee kon ñi ngi ko jël ca sommet wu francophonie ba ca Kinshasa ñaari xew yu rëy ñoo am ci Sénégal gii laal culture moo tax ba Macky Sall gaaw jëlee fa Youssou Ndour de ah maa ko wax bu njëkk ba mooy conférence internationale sur le patrimoine immatériel 2013 lay am beneen ba nag mooy sommet nekkul ay ndajewu caaxaan nga xam ne dañ ciy fox ak di ci bang-bangeeg def ay affaire u caaxaan déedéet ay ndaje la yoo xam ni xalaat la laaj xam-xam yi nàcc la laaj débat di de maa la wax li de bopp yi day xelli di xalaat borom xam-xam yi kon génn te xam ngeen ne loole lépp nekkul ci nduur waale mbergan nekkul ci yusu de maa la wax lii yéene kaay gi ne te genre xew yoo yee ministre bi nekkul ne day dikk rek def daal ab discours am woo xam ni kon ñeneen a koy bind rek ne meste menteng déedéet olof njaay ne gàcce gu gàtt gën gu gudd waa kër Macky Sall ak Macky Sall ne nañ leen gaaw jëlee fi kon yusu Youssou Ndour tribune yéene kaay ne Abdou président woon nettali waat na kon Macky Sall mii discours bi nga xam ne ministre de la culture mba woon Abdoulaye Elimane Kane defoon na ko kon ca Paris jee ca France 1998 Abdou Diouf ne Macky Sall adduna yëpp keroog danoo daan kontaan ci Sénégal lool ndax discours Abdoulaye Elimane Kane le philosophe ministre maa la wax li te am na ñoo xam ne sax fekkee nañ audience Abdou Diouf ak nañ Abdou sax mi ngi tooñ kon Macky mii di wax ak moom daal di ree daal naan kon nag xam nga ministre de la culture moom baaxul daal nga jël ni làmb yaxa kii di wax ay français njalaxaar ak di massacrer la langue française cay France Sénégal kii yéene kaay gi nee na Tony Silva day coowam la ak jabaram joowoon di Aïda Ba ah léegi leer na de kañ toftal ca procureur bii di Abdou Karim Diop ndeke laale wu ca dara laale wu ca dara ba dara booloo jeex nga maa la wax lii Tony Silva ak Aïda moo mais ñoo waxtaanee seeni mbir ba juboo ci kàddu tënk ko daal di kon tas sëy ba sëy ba tas na diggante docteur Alioune Sarr ak Gaston Mbengue dem na ca lamb ja Gaston Mbengue ci tous les sports ne lamb ji ay mbirum parparloo lañ bëgg a def kon ci dat yi bëgg a baddil maanaam eh, eh, eh, bakkanu askan rek Gaston Mbengue ci suñu làmb ne way li ñu bëgg daal mooy dugal ay mbirum xeet ak yooyee ci làmb ji jël làmb ji yëpp def ko moomeelu séeréer dañoo bëgg a séeréeriser làmb ji <laughs> tey lamb ji tuule soox ne ëllëgu booy ñaa deux bu ñu sukkandikoo ci ab xabaar booy ñaa deux mii danañu ko bal de un maa la wax lii dana bëre cerno ka day tuur nit ñi lëndëm rek mais booy ñaa deux dana bëre de dañ koy baal de keneen kii bëre mooy Modou a Ababacar mbay Modou xarañ loo un Modou xarañ loo ci tribune yéene leen ah maa la ko wax parce que man Modou Lo damaa gëm li may wax la leen di xamalaat moy juróom ñaar fukki millions ak juróom du ma ko bëree man Modou Lo soixante-quinze millions ku ma ko fay du ma ko bëreel <laughs> alaaji doon naa fi ñeme-ñeme lu xarañ loo di ko laaj de waaye ragal naa ni danaa reculer de dellu ginnaaw man nii nga xam ne ay ñaar ak juróom laa doon laaj moom mu ne ku ko fay juróom ñaar fukki million ak juróom du bëre non maa moom kon tolloowuñ doole xëj na ma gën koo saf laa miñ kay waaye doole tolloowuñ